salaamaaleykum internet Hann TV ñoo ngi leen di nuyuwaat ba tey si màggal 2019 ñu fii si Touba Ndamaatu kër Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Abdou Fadal Mbacke ñëwoon nañ fi daaw yàlla dimbale ñu may ñu taw feex ñu ñëwaat fi di ko sant sëñ bi bu baaxa a baax a baax bëgg waxtaan ak moom si diggante sëñ Fallou ak màggal gi ndax. bu lii yëpp amee ñëpp di ñëw màggal si Touba yàlla ak jëmmam jooju moo tax moom mi ko woote fii si dëkku Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu toog ak kenn si njabootam di sëñ Cheikh Oumy ngir waxtaan ak moom si màggal gi sax suñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax a baax. bu baax a rek tey ñaan yàlla defal nu jàmm nu teewee ko nagari déwén te ginnaaw teewe nañ ko te yàlla moom la soob ñu teewee ko yàlla nañ ko a na ko soobaat nun teewaat ko nagari déwén màggal gi comme niñ comme niñ ko waxee rek dafa mel ne luñ ci wax danañ ci tudd sëñ Fallu waaye boroom a ko njëkk a def dégle tam ne nañ ko koy defle Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo njëkk a toog jataayu Cheikhul def ko moom it ba yàlla dogal muy egg si Cheikh Mamadou Fadel mu ne damaa bëgg de ñu de ko defee fii de ndax moom moomee nga xam ne moom laa muy yonent mi sallallahu alayhi wasallam la ko dal laa bañ mu dal ko ndax mel na mbokkam ni waru ko nekku fa fii nag ñun ñu ngi ko kapp rek wër kuy dem danga yem ci nun kuy génn da nga da nga jaar ci nun ma bëgg nag ñu fekk ñu fii ñu bokk defal ko santale ko yàlla fii la ko woote ci xaayira mooy fi sëñ Modou Bousso Dieng dëkk tool yi ñànk la ñànk la kon nag amuñu lu dul moom yaakaaroon ko dul moom mu wëlbatiku rek ne kaay leen sant ma yàlla loolu moom kes mënu koo mu musu koo bind ci téere kaay leen sant ma yàlla sëñ Tuubaa rek ko mas a kon nag li ñu ci wut ak li ñu ci bëgg yàlla na ko yàlla defal ñu di la dégluwaat nag ba looy waxaat rek. ñu des ci Sëñ Fallu ba léegi ndaxte bu ñu waxee màggal gi bu ñu toppee taaxir tuuti ba sin sin bu soobee mi nga xamante ne ma maamam la ak. gan gën yónneeg ñu wéccu ko mu ko ak xaar ak sa jaarem loolu yépp ñu bëgg si ay léral ci jëmale Seigne Fallu diggante magal gi batay ak Seigne Fallu Seigne Sëñ Fallu xam nga euh, am kilifa tax mom lu bari bari yalla dimbalé ko ci ndax Cheikh Mamadou Moussa mom daaw ko tuddu sama mag gi bax ci la ko da woyé mam cierno musu koo wooyee maam Thierno Baye la ko da woyé bay Cheikh ibrahim ta musu Cheikh ibrahim kon mom ñi naka jekk lu mu am rek am kilifa ko may lolé nak mo waral bu ñuy tudd magal gi il faut ñu tudd Cheikh Mamadou Fadal waaye nag jege ko jege guñ jege moo tax luñ ci wax dañuy yaakaar ne ko jegee tax te déedéet lu yàlla dogal la ci moom kon nag lii nga xam ne moom lañ ci jàng ci ay kaamilul xuraan bari na lool ay moom ay mu fat mu fàttewul bisri lañ ci jàmm jàng bari na lool moom moo dawul foofu jàng nañ ci jay sun di ci ñaanal yàlla mbooleem ku fi rek loo bëgg loo fi indi rek yàlla na ko yàlla saafara ndax xaj na ci waaye moom Cheikh Mamadou Fadal moom lii rek la bëggoon sëñ Tuubaa defal ko ko ndax ci magam ju baax jële ko si sekk mu donn ko di sëñ Tuubaa ne nag kon nañ ko defee fii ci moom ndax santale ma yàlla moom kenn musu koo dégg bu ko amee ba noppi nag ñu di ko defee ci sëñ Tuubaa kon yaakaar ji dana gën a bari kon nag yàlla na ko yàlla fayal yéen ñi nga xam ne tamit yéen a teew yii di ñëw ci si sëriñ bi li ngeen bëgg ci seen lii ngeen yore muy média bi li ngeen ci bëgg yàlla na ko yàlla def waxuñu dara sax waaye di discipline yi ngeen di ñëwee ci nit ñi war naa tax lu ngeen bëgg rek nga am ko kon nag ñi ñaan ñu teewe koy déwén déwén te di la xamal ne màggal gi moom li ci la laxasu lépp kenn mënu ko tudd li nga ci yëg rek laa ci yëg keneen yëg ko ci ñu nekk ci rek ba dan nag di ko santale yàlla loolu daal lañ ci nekke di ci ñaan luñ ci def yàlla nañ ko bokk ñëpp rek waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah